jeexal loo xam ne euh, moom laa bëgg a jeexale muy euh, fan yi euh, gis ngeen sunu mbokk moomu ñuy wax Makhtar Sarr Makhtar Sarr Sénégal bi yaakaar na dégg fii ko yéen ñëpp Makhtar Sarr di jàmbaar yoo xam ne xeex bi ñuy xeex mu ngi taxawu tasawuf ak liggéeyal mag ñu wax kenn jiitu ci muy ci biir mën naa wax ne kuréel gi di AIS mu boole tarixe nekk Sénégal yëpp ñu njëkk a jënd carte membre ci la bokk bi Makhtar ci bi nekkee suñu bureau bi fële ci Dakar macha allah mu yàgg taxaw tasawuf di ko défendre di ko leeral rawatina ci yoonu tarix ak tijaaniya Makhtar Sarr moom nag gis ne fan yi wax dëgg yàlla jug na liggéey liggéey boo xam ne jug na liggéey liggéey boo xam ne ñëpp la ko defal liggéey boo xam ne mbooleem kuy xale bi généraux mbooleem kuy tariqa ah, maanaam maanaam maanaam tasoo yu nekk ñoom defal na ko gis na nag loolu am na ci eh, ay menaces am na ci ay attaques yoo xam ne ñu ngi ko jëmale ci kaw waaw Matar Sarr di ko menacé ci mbir moom nga xam ne jug na di ko xeex te bokkul ci diine bokkul ci lislaam loolu mu gis ay attaques yoo xam ma ngay dal ci kawam loolu nag wax dëgg yàlla ñun en tant que AIS kuréel gi boole tarix yi nekk Sénégal yëpp ñu ngi ko wax ne ñu ngi ànd ak moom ci kanam ci gannaaw ci féppam di solidarité ak moom li wax ne lim nekk ñun ñun ñëpp la ko àndal ñun ñëpp la ko nekkal ndax ñun suñu liggéey du dara lu dul sàmm tasawuf sàmm li fi mag ñu baax ñu bàyyi loolu nag day am ay défi interne am am défi externe défi interne mooy ñi nga xam ne dañoo bokk ci biir di ko mbubboo ba pare def na ko suñu noonu ñoo ñun ñoo war a taxaw cax seen loxo ak ñi nga xam ne dañuy attaqué ci biti tamit ñu taxaw ne leen du ngeen attaqué kon bu fekkee daa am ñekk ci biir def na ko sud noonu mu jug di ko dénoncé ñu bëgg ko jël indi ay menaces loolu jot na képp kuy dund l'islam confré wala képp kuy ab jullit nga taxaw pour ànd ak moom ci lu mel noonu ba lépp lu ko wokk ñu taxaw ba ba lool du ko wokk wala wala boog lu ko wokk xuriñu waaw lu ko waaw solidarité ba lu ko wokk kon boobaa nañu xuri waaye waruñoo seetaan sax ba dara di ko wokk donc kon loolu mooy message bi nga xam ne bëgg naa profité fii ci Diourbel fii ci Njaareem di ko lancé di wax ne AIS jëpp ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañ nekkal ñi jigéen naa Maxtaar Sarr fas yéene ànd ak moom xeex boobu ndax li muy def ñun la koy defal ñu ñuy def moom lañ ko defal di ñaan yàlla yàlla ko yàlla muccal ndax jàmbaar la te mi ngi liggéey liggéey bu rafet boo xam ne mag ñëpp la ko liggéey tasu ñëpp la ko liggéey asalaamaaleykum